waaleykum salaam wa rahmatulah. Cheikh Saliou. waaw alhamdulilah yaa ngi en direct Tanim TV. Hmm. Euh, da yow yaakaar naa ne euh, dama lay bàyyi rek nga nuyoo bu noppee nga présenté wu ma am question yu ñu laaj incha ngi leen di di mm-hmm. jiital nuyoo bi nag dina a jiital yow Serigne Saliou. Mm-hmm. ah di ñaan yàlla sunu sang bi nga xam ne moom la sunu borom teg si njaboot ak Seexul Xadim muy Seex Muhammadul Muntaha. Mm-hmm. yàlla na yàlla yàggal ko fi lool. wéral ko ba li mu bëgg a liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul. mu mottali lépp. ah te nu ànd moom. di nuyu bokki Touba yëpp di nuyu waa Teneng TV yëpp. di leen ziyaare di leen baalu ax Mm. tey ñaan yàlla lii ngeen ma laaj yàlla nañ ci wax loo xamante ne lii dina man a jëriñ askan bi mm. eh, waaw kay bëggoon naa nga présenté wu wax li nga doon bu ko defee ñu sogo ñi lay déglu xam ne eh, li nga doon pour gën la mën laa teewlu ba xam waaw ah. Ibrahima Fall laa tudd mm-hmm. juddoo jandeer mm-hmm. jànge fii mm-hmm. ah laa dem Kaolack hydraulique bu Kaolack après mu jóge fa dem Louga. Hmm. boobu benn brigade de forage moo am Sénégal wala école formation bi nekkoon nga xam fi la forme former techniciens yi nekkoon Louga. Hmm. ma def fa soixante dix neuf. Hmm. ba quatre vingt trois. quatre vingt trois laa ko jógee commencé liggéey si benn société bu ñuy wax Foraki. ay belge lañu. liggéey ak ñoom cinq ans. bi ma jógee si société belge yooyu laa ñëw Diourbel benn société français bu nekkoon Sobeya. def fa ans. après bu ma fa jógee laa dem Technosol hmm. Technosol benn société italien la hmm. def fa quatre ans hmm. après bu ma fa jógee laa dem Primoucar benn projet italien bu nekkoon Sédhiou def fa huit ans après bu ma jógee foofu noonu laa dem Land System benn société espagnole la def fa huit ans après laa jóg nag am contrat Maroc doon dem Maroc pour quinze ans ci am sama xarit boo xam ne taalibab Serigne Saliou ma ànd ak moom mu ma nañ dem si Serigne Saliou mu ñaanal la avant ngay dem. Mhm. ma yegg sëñ bi ñu fekk waa ji benn jumaa la bëggoon a tawax mhm. sëñ bi ko tabax jumaa de naam baax na waaye kii bii ngeen wax ni moom ngeen nekk bu ngeen utoon ñaari nit si liggéey yoral ma seen i waajur moomu jumaa ba ma amoon. Mhm. toog pour machine. diggante boobu ak léegi dem naa ba au moins lu war a mat. waxuma ñi ma formé si ay nit nga xam ne dama yoon man suma société Touba Forage école laa ko defoon. Hmm. ndax bëri muy ingénieur yoo xamante ni soit DG fële la ñu nekkoon école polytechnique wala fële bu def seen première année deuxième année ba keroog bi ñuy jeexal. Hmm. ñu si bëri si man lañ doon defee stage ñu si bëri tey directeur technique lañ wala ay directeur société lañ. Hmm. Ah bi ma yoree suma yëfu bopp nag 2006 laa créé suma yëfu bopp. au moins def naa si Sénégal sans forage. yi nga xam Mhm. au moins def naa fa lu a mat euh, cinq forage mhm. yoo xamante ni maa ko defal sama mais avant loolu liggéey naa Touba ci bi nekk Sobeya muy mhm. forage yi jóge quatre vingt six def naa boobu maa ngi Touba euh, teraanga ji mu jëkk amul kaddu gi ma gën a dégg si li ma gën a rassuré ni ma nga am si li may liggéey ci Cheikh Abdoul Ahad laa ko dégg moom nag maa Ibrahima Fall mi hmm. ah suma jaar-jaar yi ci forage ba tey jii may wax ak yow hmm. ci forage lay xëy si lay hmm. ko eh. naa ku ma dégg tamit yaakaar naa ne ñu bëri bu ñu ma déggee dinañ xam ne li may wax noonu eh, nga ne Touba gi gas nga fi ñaata forage Touba maa def Tindodi waaw Tindodi waaw Tindodi benn projet la woon boo xam ne aussi mu ngi tuddoon Saliou Ngom actuellement moo nekkoon DG Péré léegi moo yor forage sonné si yëpp. Hmm. bi ma defee Tundóori bi ma fa jógee maa def Ndumbooji. Hmm. Ndumbooji. Ndumbooji. Hmm. maa def Daaru Salaam Daaru ma. maa def euh, Touba boobu def naa fa benn. yooyu maa leen def réhabilité ci entretien wu pompe tamit def naa si yu bari ndax boobu dama doon liggéey ak euh, Serigne Thial bi may defar Daaru Salaam boobu Alaaji Mandiaye Jongo moom financé woon forage ba ndax dañoo forage bi nekk Tindodi. Mhm. lu woon forage ba man dañ ko war a def si réseau bi. la woon. mooy lu ñu war a a xool ndox mu Tuubaa ni ñu koy pompé ni ñuy wàcceeg ni muy dem mook bi nekkoon Baxdaad. Mhm. looloo leen taxoon a jóg. Mhm. moo tax ay diamètre yu ndaw lañ ko defoon. bi ñu ko defee diamètre yu ndaw am fa au moins forage bu nekk amoon nañ fa cent ci mm. lañ ko door ne nag lii nañ ko programme yi dugal ko si biir réseau bi mais bi ñu xoolee foofu ndox moom moo commencé woon tane ci mm. la ma njaay jom nga laaj ñu léegi ñu leen foofu lii est ce que mën nañ fi am leen ñu leen nañu lañ dem daaru salaam darma mm-hmm. bi ñu demee daaru salaam darma def fa forage bu mag boo xam ne cent soixante kilomètres mm-hmm. naa faa génn trois cent cinquante mètres deux mm-hmm. lañ ko def sa seize août mhm. euh, euh, sëñ Ibrahima. yaakaar naa yëg nga ndox mi nga xam ne moo ñàkk fii ci Touba ministre bu bees bi depuis ci nguuru euh, Macky Sall ba léegi loolu dañ koy jooy màggal gu jot ñu ñàkk ndox léegi nag amatul màggal léegi jamono bu nekk ñu ñàkk ndox. ministère bi ñëw na fi ba jël ay engagement am euh, lu ko jiitu sax président bi di Bassirou Diomaye Faye ñëw na fi ba jël fi engagement ci ndox mi euh, Touba li fi nekk ci forage 37 la sëñ Bass Abdou Khadir mujj wax bi ministère bi teewee euh, lan la ñuy def pour mën a amaan ndox mën nga confirmer ne 37 yi ñoo fi nekk ak ndox mi lan mooy problème bi ndax fii ñu nar a jaar ñoom ñii ndax nar nañ koo réussir wala yow am nga ci benn xalaat. waaw xam nga kilifa wax ba pare nga di si teg kàddu. Hmm. ndax du lay teggin si ñun taalibe yi. Mhm, mhm. waaye nekk. Mhm. am nga xalaat ndax lii fi nekk. commencé naa fekk ñu am ci si liggéey damay cent quatre-vingt-six. laa ci commencé waxtaan ak sëñ Mortala mu Cheikh Sëriñ San. ndax nekk na chef de service hydraulique mu jëkk def. jóge fa dem Saint-Louis. Hmm. jóge fa dem Casamance jóge fi ñëw Kaolack Fatick la retraité. Hmm. moom moo jëkk a jëlee ndox biir Touba yóbbu ko Ndindi. Hmm. mën naa ne ci li mu jëkkoon a mooy nekkoon suma wasila. bu ma musaan a toog màggal jot ñu dégg problème ndox amul Touba ñun ñaar yëpp dañu daan naxaw ñu di si discuter. ba mu jaral ma ma def ay gëstu yu bëree bëree bëree si biir tuuba ànd si nag ak ay universitaire ay ñoo xamante ne nii ay hydraulicien lañu. Mhm. yoo xam ne mën naa wax ni bu dee xam ndox ci Afrique. Mhm. ku leen si mhm. ma liggéeyandoog ñoom presque lu fanweeri at ak juróom la fanweeri at ak nangam. ba biir ndoxum Touba bi maa ngi ñoom liggéey nañu si lu dul benn du ñaar waxtaan si lu dul benn du ñaar. mais solution bi nga xamante ni bii moo xalaat moom laay xalaat ci biir Touba pour le moment nii. ministre bi ñëw na fi ñun yaakaar si ñoom lañ. di ñaan yàlla. yaakaar bi nit ñi am ci ñoom yàlla bu ko sunu borom tas. bëgg-bëgg mhm. bi ñu bëgg a si Sëriñ Tuubaa tamit yàlla na ko sunu borom nangu. Mhm. ndax seen ndam mooy ndamal ñëpp. Mhm. waaye nii ma gisee ñu continuer di ko liggéey ndax dama mënul imaginer ñu ne trente sept forage mu ngi biir Touba. trente forage yëpp ci Maastricht lañ ko capté. biir Touba ndox bi fi nekk actuellement pratiquement nit warul sax naan ko sàkkantuma ñu gis def la ne ndax baaxul. mais indi na anomalie boo xamante ni bii mis ku xam forage manoo d'accord ni trente sept forage nekk ci benn dëkk ñu ni day manqué ndox mhm. loolu ku am xalaat waroo ko mën a nangu mhm. ndax forage yi Touba yëpp ñaari catégorie ndax forage yi Touba ñeen na donc la ñuy tollool ay forage ci diamètre mooy SONES mhm. ak yenn privé yi ñi xaalis ndax ay gros diamètre la ñu ndax bu jëkkoon forage yi fi jëkkoon doon nekk ñetti société ñoo ko doon def fii si Sénégal Touba. Mhm. muy Intrafor Cofor ak Safif. Mhm. ak Sonafor. Mhm. Sonafor Sénégal ko moom gouvernement Sénégal ko moom. Intrafor Cofor ay tubaab ñoo ko moomoon moom la Bara Tall mu ngi jënd nekk si Sénégal. Safif ñoo ëpp si def ndax moo ëpp def si ay forage Sénégal. ay tubaab ko moom mais Sénégal am xam-xam ñoo fa nekkoon. kon forage yu njëkk yi njëkkoon a def Touba yëpp. kese bu la doon doon mooy feer yi def rek comme forage si pétrole bi. Hmm. mais yu si bëri xam naa ni xorom bi yàq na ko. Hmm. captage bi si biir yu si bëri xorom bi yàq na ko ndax boo déggee da ngay dégg ñu naan des na digg nekk ci pompe téew nekk ci pompe bi la koy bënn forage bi toog presque vingt ans wala trente ans ndox ma di fa taaju liy bënn li nga xam ndox mi da koy romb rek di ko mujj dem mais ci biir forage boobu noonu bu bënnee ba suuf di fa jaar di sakk ndax. forage lay génn ndox ma boo ko gasee ba pare ba wàccee captage bi lu ñuy wax Crépin Johnson moo fa nekk Crépin Johnson xorom mun ko lekk. Mm-hmm. ndax inox la. Mm-hmm. mais li ko accompagné ba mu génn si chambre de bi fer la comme feeru kii bi nekk ci kaw. ñu mm-hmm. leen séparé muy raccord électrique li commencé si raccord électrique ba si raccord gauche droite bi bënn bënn mën na faa nekk. suuf du fa jaar wala garaay du fa jaar. fermer crépine yi nga xamante ni bii fa la ndox mi doon jaar ba nga amul dugg bu bëri. Mhm. loola nag pour nga mën koo xam il faut nga def diagnostic. loolu la ñuy wax réhabilitation réelle. Mhm. mais du question comme ni ma dégg nii di ko def rek nit bu màggal mi génn génn loolu réhabilitation mais man damaa gëm ni forage yi tubaab bu ñu defoon réhabilitation normale. Mhm. ñu jël mat vingt forage ñu jox leen autorisation ñu ut caméra. commencé si chambre de pompage xool raccord gauche droite bi xool cimentation croisement gauche droite bi. Mhm. xool type de jour yi casing bi ba ca raccord électrique bi. xool mhm. crépine yi ndax sóoluwul la déet bu fekkente ni di sóoluwul mais xoma xoma mën naa ñëw ba colmaté ko ba ndox mi mu doon dawee ci biir. Mhm. crépine yi defatu ko loolu lépp dañ koy nettoyer bu ñu paree bu ñu ko nettoyer pare defa traitement soit na nu ñu ko defee ak acide bu la exa nettoyer ko ba mu pompage bu ñu defee essai de pompage bu fekkee chambre de pompage bi bënn wala amul benn anomalie si captage bu boobaa bu amee anomalie boo xam ne nag leer na la ñu ni si dépensé. Hmm. duutu la mën a jox résultat ba nga amoon bu boobaa da nga fay éliminer forage boobu dem def leneen ndax SONES lii di liggéey nii. Hmm. mosu ñoo gis chaque deux ans yu nekk dañuy réhabiliter seen forage mais mosu leen a dégg SONES seen forage am problème. Hmm, waaw loolu daal suma xalaat la a am naa yaakaar ni problème mu màgg ndax daaw demoon nañu ak waa Touba sa kanam. Mhm. ma xalaatoon ko boobu ba ñu leen a essayé def cinq. Mhm. mais bi ñu demee ba ci biir am ñu leen wax ne leen diggante du fi mën a nekk ndax caméra day jël euh, deux jours la day caméra bu doon forage cinq cent mètres. Mhm. caméra bi du jël passé une heure de temps. Euh, xanaa li ngay wax li ñuy wax OFOR ak euh, Maahu Rahmati ak Sénégal ak sa Sénégal kii ñi nga xam ne ñoo yor ndox ma xaw ma Sénégal xaw ma Sonacos kii. Eh, ñooñu ñoom xalaat bi amuñu ko wala soit leneen dafa nekk ci biir. ah xam nga eh, loolu moom mënuma cee wax ndax nit moom bu fekkee bokk leen fu ngeen di xëyee wu leen fu ngeen di gonte. Mm-hmm. la ñuy doxee ak la def xamuloo ko. Mm-hmm. waaye leer na man lii ma ci xam ni ñoom ko xamee woon moom yaakaar naa ni buñ si doon wax tamit nii lañ siy waxee. Ah. waaw ndax man li may wax suma métier la. su métier la réhabilitation forage. Mhm. mën ngaa nekk si société. Mhm. def fa ñaar fukki at. Mhm. te ah, mën ngaa nekk fa bar terewul loolu nga xam na forage rek ko mën naa koo def. ndax SONES gii ni am am xaalis dañuy uti koy def man bu ñu màggal gi door a jub si. naa benn société boo xam ne dama calculé woon moom dina am ñetti équipement yoo xamante ni ñetti yëpp. kenn ku ci nekk damay fexe ñu liggéey benn quatre heures sur vingt ndax après tout fi mu toll forage yi naa am ay pompes daanu ci biir. Hmm. mën naa am ay tuyaux daanu ci biir loolu yëpp mën nañoo fermer waaye hmm. boo dugalee ci bu fekkee ay tuyaux yu daanu ci biir hmm. bi ñu daanu nekk. yow daal li nga wax nii mooy lu mel ni rajo rajo boo ko doon wax ci docteur bi rajo ko waaw waaw boo koy ñu mm-hmm. wàcc si mm-hmm. lu koy wan. Mm-hmm. waaw eh, eh, lu mel ni njaareem wax nga ci ndox mi tamit nee nga ndox mi kenn waru ko naan ndox mu bon la moo xamante ni. waaw Touba laa wax loolu laa la wax ba ci. ndox ndoxu Touba eh, dama gis ndoxum tuubaa ak njaareem. Euh, ak ak ak dañuy yàq bëñ yee ndax Touba da leen a gën a bon ci ndox wala ak euh, foofu tamit. waaw ndoxu Touba moo ëpp xorom bu Kaolack. Hmm. Hmm. mais filior bi nekkoon Touba ak Mbacke. Hmm. moo xoolee ni mu waxe xorom. boo xoolee presque fóot sax mën ko bu baax. pour nga jël saabu mu xob. maanaam ndoxum Touba. man ci laa jàpp nit ñëpp xam ni kuy sëriñ Touba. ndax ni ko xool Tuubaa xorome ak mhm. ni muy mhm. mhm. la mais mais wax nan docteur yi borom xam-xam bi nee nan ndoxu Tuubaa ñi ëpp tension ci ci Sénégal tension bi foofu la moo xorom si la xorom fi mu toll nii boo génnee Tuubaa par ndax bi ñu jëkkee nii dañuy def ay forage test mooy bu ñu def tindoor dañ doon xool ba xam boo génnee Touba à peu près sept kilomètres mm-hmm. ndox mu ngi fay jot mu mel mm-hmm. ñu def foofu mu tali di nekk ci biir Touba mm-hmm. ci la ñu génn vingt huit kilomètres def fa forage boobu ñu def euh, Daaru Salaam Darma boo xoolee li ay gogo ba keroog ngay dem Sadio lu tax ñuy programme def Sadio ay forage pour mala alimenter Mbacke bëgg ko yóbbu Diourbel ndax par exemple ñun li ñu calculé noonu fukki forage yu gros diamètre. bu mhm. ñu ko defoon ak yi nekk ci côté boobu mu tane. Mhm. yi nekkoon biir Touba bu njëkkoon dañ koy éliminer. Mhm. bu fekkee nag booba ñu defar réseau bi ndax booba ñun a ko xalaatoon ci bu njëkkoon mooy xalifa yi Serigne Touba yi. ku ci nekk defar benn forage équipé ko seex yi. ñaari seex yi Serigne Touba am kenn nekk bu ñu ko joxee fukki kilomètres wala naan dañuy am lu junni kilomètres biir Touba. nga xamante ni bu boobaa murid ñooy liggéeyal seen bopp ndax murid loolu ñoo dépendre si kenn. Mhm, mhm, mhm, noonu lañ ko xalaatee woon bu waaye nag loo am am xalaat te ah, ay say fa nekk si sa kanam ñeneen nekk sa kanam mënuloo wax lu dul toog déglu leen mais Touba ci kanam méthode bi pour def ko. mais Touba ci kanam ndax li ñuy wax ni joxe fa nga xam def ko xaw ma nan lañ koy waxee fi. waaw laaj lees man li ko def fees xam. ñu am intention pour liggéeyoon la. Mm. mais ñu ragal defet lañu te loolu mooy dëgg aussi. Mm. ndax nit la joxee fa nga koy def te boo ko fa defee da ngay mm. échec ñu nangu di ko fa. waaw sëñ Abibu kay wax na ne ndox mi moom bu ñu ko leen ko doon jox. du ma fen du ma man toog naa ceeg na yàlla ñu ku ko bëgg gën a bëgg pour ndoxum Touba mel na mu war a mel. bu ma yàlla laay wax ni nit ku ko gën a mais moom gëm fekkente ni bi ñi ñu bëgg du nekk loo xamante ni bii looy échec. looy la. ku bëgg dëgg la ku bëgg liggéey la man ku ma naw aussi. Hmm. Euh, euh, léegi li wax nii par exemple ne euh, ñenn ñu bari ci nii di wax ne ndox mi ñi ko yore ñooy bolek kii yéeg yooyu ndax loolu mën nga leen koo layal wala. loola moom it du ci wax sëñ bi man wax ci loo xam ndax. Hmm. ba ñuy wax ni dañuy bolok ndox dañuy def ndax dama lay wax ni daal. Hmm. mën naa laa jox benn exemple. bu ñu nee 37 forages yi ñu tourné biir Touba. léegi pour ma jox la benn exemple. bu ñu hmm. demee ba une heure du waaw diggante une heure ba quatre heures. Hmm. benn lavage du dox. Hmm. déedéet waaw benn benn du root. waaw benn station du dox. mais te ñëpp pompe yëpp pompage direct la ñuy def du ñu dem si château d'eau. ndax château d'eau ba ñu koy defee pour pompe am fu muy nooyee moo taxoon ñu def ko. nga xam ne day duy château d'eau bi soit mu am flotteur bu koy arrêté wala bu feesee trop plein bi. autoroute dafa nekk xam ni sa dëkk fees na bu demee ba joxe nit ñi ba wàññeeku ñu taalaat pompe mu remplir mais am na heure yoo xam ne par exemple bu ñu koy pompe te kenn rootul kenn deful dara. Hmm. léegi pression boobu noonu dugg ci biir réseau bi. Hmm. su gën a faible daf koy toj. Hmm. te biir Touba saabu bi ñu commencé presque zéro ba presque ay quarante mètres yëpp saabu fi mu toll nii ndoxum Touba dafa naan ci biir ndoxum ndoxu ndoxu forage yi. ba nga xamante ni bii bu tawee ndox mi. dootu ko mën a ndax nag sariyaat yi dafa yéeg ba ci kaw boo gisee ñu wax problème mu inondation Touba ko indi quatre vingt dix pour cent yi loolu sel euh, ndox bu tawee dafa aw lu ko wara a naan mhm. ndax dafa am benn couche argile boo xamante ni bi boo demee presque ay quarante cinq mètres ba cinquante mètres soo mhm. lay nekk lu mel ni perméable lay doon mais genre suuf la mhm. foofu ndoxu taw bi mënu koo traversé heure booy def forage sa ngay def sa colonne technique pour bañ suuf bi mbaam léegi ndox moom bu fekkente ni bi di jëm ci kaw ndox mi saabu bi di naan saabu bi bu fekkee day moom toujours muy naan ba amatul lu mu lu mu naan. Mhm. mais ndox mi bu ñëwee dafay bloqué foofu. Mhm. ndox moomu bu ñëwee fekk si bii pression bi moo koy génne muy doon inondation bu wéree loolu moo ko indi. Hmm. Euh, sëñ Ibrahima dañuy saboote dañuy def loolu moom. Hmm. ah dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la kàddu gu mujj gi ñu bàyyi la lan ngay jëmale ci ministère bi Cheikh Tidiane bi jéey bi nga xam ne moo doon te dégg communication ak par rapport ak euh, sëñ Mbàkke Thiam sëñ sëñ sëñ ki Mbay Thiam mi fi ne woon euh, nan nga leen di comparer. man de bu ma amoon lu ma leen di comparer moom bu ma fekkoon damay am lu may wax. Hmm. Cheikh Tidiane jéey yàlla dimbali ko ma xam ay techniciens yu liggéey loolu. Hmm. yoo xamante ni kenn ki bi ñuy ñëw barke démb di hmm. doon saayo foofu moo fa wax hmm. am na ay nit yu am yoo xam ne taalibay sëñ Tuubaa am xam-xam hmm. bu leen bàyyee xel laaj loolu la sa nekk yaakaar naa ni dina réussir waaw ndax nag léeg-léeg may toog di dégg ci audio ku nekk ak ne ngay ngay ngay ngay waxee mais mbirum forage xeer la du loo xamante ne li ñu wax Hmm. taxul nga def ko taxul nga xam ko. Hmm. nit mën naa jàng doon ingénieur benn na ñu ne ingénieur li mën na hmm. loolu théorie forage. wala forage bi bon kii bi ni mu comment dirais sa sable bi ni mu mel. wax la suuf bi ni sa kaw ba suuf argile beeg marne yeeg nangam bu ñuy def pompage ñu mën a def ay courbe wax la ni le meilleur par nombre mais koo machine yi gasal forage bi ba def. kenn ku euh, Eh, ñu ngi lay sant fekk nan la sax sa yaram xaw a sutante loolu waaye ñu ngi ñaan yàlla saafara ko eh, ba liggéey bi nga participer ci bu baax a baax a baax a baax. amiin yaa maa ngi kenn ku mu blessé. Hmm. yéemuñu si lenn nag lu hmm. ah, bëgg-bëgg xamante ni